télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak la ca gën a fës euh, mbiram euh, Petro-Tim mu mel ne euh, dossier ba jébbal nañ ko procureur la République gannaaw ba liggéey yëpp waa DIC jeexee ñenn nag ci taskatu xabaar yi ñoom nag ne ñu ngi jël nag ñu doon daaj ak lu ni ñu ngi ay firnde yu taxal ak ñu sàll bu ci mën a am defal nañ leen ci ab taxaw seetlu jàngalekat yi dàq ko ñu bankati seen yoxo weeru octobre bi nu dëkkmal bokk na ca la tax ñu wax ko ne ñu nguur gi ak euh, kàddu ya mu jëloon ñàkk sàmmoon tega ñu ne sax la tax ñu euh, supprimer maanaam jële fi euh, poste ab Elimaani jëwriñ ji tax na mbir mi sooxe ndax moom la ñu daan waxtaanal boobee itam def nañ ci gëstu beneen ponk mbokk yi mooy lecc jaba ak soble mu mel ne nag fi mu ne nii lu jëm rek ci saa jaaykatu soble yi daal dañoo bëgg rek soble bi ñuy ñuy defaree biti réew bi ñuy bayee bitim réew ñu indi ko loolu nag ñu yore euh, soble mbay ànduñu ci ndax nee ñu euh, am na lu ñu denc ci soble jamono ji ñuy àddoo ca diwaanu Thiès moom euh, jaaykat ya waxewun lu ni mel dañoo sax amal toogaanum ñaxtu noonu ngeen ko gisee nee ñu soble dafa manqué ba noppi seer ndax léegi sax kilo bi dem na am ñu koy jaabee téeméer ak ñeent fukk la bëgg rek mooy ñu fexe ba biti réew ñu ibbi daal jabi mu dugg ci réew mi askan wi mën koo jariñu loolee sax dafa mel ni euh, antu na beneen ponk mbokk itam mu jëm ci wàllum euh, suukar jamono ji suukar it ni soble jafe noonee la jafe bu buñ ko waxee nag suukar bu mokk bi euh, daanaka moo tax ñuy wax ndax euh, nee ñu mboobee suukar sax fi mu ne nii ñi nga xam ne nag ñoom ñoo koy defar di waa CSS di compagnie sucrière sénégalaise ne ñoom mbir mi du ñoom ñoo ko def ndax nee lu toll ci ñaar fukki junni ak ñaar ci ay tonnes ma nga ñu yor seeni barab bokk na itam la wax ne ñu suukar bu yokkoo du ñoom ci ñoom la jugee euh, beneen ponk mbokk yi muy accident yi itam bari na jamono ji euh, bi ci mujj di bi ñu doon waxtaanee ak woto euh, ambulance bi daal di tase ak ba ñeneen gaañu ca loolu nag tax na sax ñu sampap laaj ne ñi nga xam ne nag ñoom ñooy jege ñaale ñi ci faatu wa ñu jëlee ay gaañu gaañu mbir mi ana lan moo leen ci fekk ñu ne bari na ndaxte mën nañ ca jëlee ay gaañu gaañu yi métti waaye itam xel mu dem ak itam naqaru àdduna ak fu ñu toll di sëngeem loolu yëpp des xoolaat accident ya ak loraange yi muy jur saa yu nu xëree xëyee bakkan yi di gën a bari di des ci yoon wi moo tax ñu indil leen gan ñu fas yéene cee waxtaane góor a xumale wuyoo góor ñu ngi lay nuyu mu ngoog yow yaa jiite union des routiers du Sénégal muy URS accident yi bari na ana lan moo ko waral euh, bu ñuy euh, ñàkk jëflante code de ñeneen ñi yaroo sa sago yitam am na ci lu ci mën a am moom góor xuma dina ci indi ay leeral li ci yéenikaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye lay doon mbokk yi ngeen taaxirlu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. benn waxtu taftal na juróomi simili xibaaru diggu bëccëg gi mbokk yi dañ koy doore ak mbiram euh, Petro Tim mu mel ni nag euh, waa dikk Euh, noppi nanu ba jébbal mbir mi procureur de la république ñenn sax ci euh, taskatu xibaar yi ne nag ña ñu woowoon ñuy euh, seede daanaka daal ñu bari mën nañoo indi firnde bu taqal Aliou lu ci mën a am ñoom ni ñu denk mbir mi muy procureur mën na jël dossier bi daal di koy itam jébbal juge d'instruction ngir mu wéyal loole di enquête bi Ibou Diouf ci ay leeral bu ñuy fàttali coow li juddu woon ci li nga xam ne moo aju ci mbiru pétrole ak gaz te bëri woon kilifa yi ñu ci fii ci Sénégal mënees nañu wax ne documentaire bii di chaîne télévision britanique bii defoon di BBC yokkoon na kar wi xaraw boobaak léegi nag bëri woon na rek ñuy yëkkati woon ci ay kàddu di sàkku mbir mi leer liggéey boobu nga xam ne nag journaliste bii di Mayne Jones moo ko defoon ci mbir mi nag ñu ngi ci doon naan dafa amoon ay ger ak i njuuj njaaj ñu nemmeeku woon ci ñu doon jaj bële li nga xam ne mooy licence pétrole yi te ñu si doon tudd rakku président de la république bi di Alioune Sall boobaak léegi nag ki nga xam ne rek mooy procureur bi yëkkati woon na ay kàddu ne képp ku ci am xam-xam wala nga am ci information na nga dem ci ndaw yi nekk dik nga jébbal leen ko bu ko defee rek ñu mën a wekk seen liggéey ci loole appel à sax lañ koy woowee te loolu taxoon ñu déglu ci ay kilifa yu bëri ñu naan ñaar fukk ak juróom-benn nit yoo xam ne rek jaaroon nañ foofee ca dikk ngir joxe ci seen xalaat bokk na ci ñooñee Pierre Goudiaby Atepa Mamadou Lamine Diallo Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye Hamidou Kassé Birahim Seck Alioune Sall Abdoulaye Timbo ak i ñeneen bu ñu ubbee l'enquête bi nag ñu ne rek daanaka amoon na ay bés yu bëri yoo xam ne waa dikk ñu ngi woon ci liggéey bi biñ ci noppee nag yëkkati dossier boobee jébal ko ki nga xam ne mooy procureur de la république jamono ji nag ñu ne bu ko neexee rek mën na ubbi lii duñ duppee information judiciaire ngir wéyal liggéey bi bu ko defee rek li lu ci lëndëmoon mën a leer ci gëtu askan bi ci loolu sax moo tax ñi nga xam ne rek dañu bokk ci congrès de la renaissance démocratique te ñu feeti ci kuje bi bindoon rek ki nga xam ne mooy doyen des juges di ñaawlu rek li nga xam ne mooy yeexintal bi nga xam ne moo am ci mbir moomee ñuy sàkku sax ñu gaaw liggéey bi bu ko moyul dinañ dem rek chambre d'accusation ci fan yi di ñëw CRD rek li ñu bëgg mooy fexe ba lépp leer ci boobu la jamono ji nag ñu ne am na lu yees ci mbiru Petrotim dinañ ubbi information judiciaire en tout cas loolu la ñuy xaarandi doyen des juges lañ koy jox ndaxte booba ak léegi kenn rek ana xam lañ ci tuumaal waaye du kenn ku ñu jàpp ne rek loxoom laal na ci bile mbir ñu wax ci leneen muy jàng eh, jàngale ak jàngalekat yi dàqul sax banque seeni yoxo weeru octobre bi nu dëgmal bokk na ca la ko waral ne ñu nguur gi ak kàddu ya mu jëloon ñàkk sàmmoon eh, sàmmoonte gi ne ñu itam wala tax ñu jële fi daal postub elimaani jëwriñ ji dina tax nag seenub liggéey am ca lu ca sooxee ndaje lañu ñu doon amal ca diwaanu mbuur la ci teewaayu Abdourahmane Diallo yaa ngi dànkaafu ñuy ñaawlu li nga xam ni jot nañ ko siife ak nguur gi lu ci bëri respecté wuñu ko. le premier mai dégg nañ président li mu wax ne mënul yokk système rémunération mënuñ ci def dara mu jaax ñi boo jëlee tey mbirum euh, dëkkuwaay loolu nguur gi respecté wu dañu doon nguur gi mbirum alignement ak rappel engagement yi mu jëloon respecté wu boo jëlee mise en solde nguur gi dana woon ren fukki junni dinañ leen mettre en solde mais diggante janvier ak juin 2019 ñaari junni rek la ñu mettre en sol ñuy yëngu ci wàllum njàng mi di xamle ni ginnaaw bi ñu supprimer post premier ministre ba léegi waxtaan yi ak xeet gi ni mel dafa tagga tembe quand l'institution primaturale était bi fi poste premier ministre nekkoon waxtaan bi daan nañ ko amal saa su ne li ni mel nag bi mu amatul mbir yi dafa taxaw mbir moomu doon na li nga xam ni ëllëg na ñëpp ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum njàng mi rawatina syndicaliste yi. puisse porter ce monitoring. au conseil bu jaloog social woote woon juróomeelu session ngir waxtaanee wàllum njàng mi li mu bëgg rek mooy ren ji njàng mi ñu amal ko ci ni mu waree. ñu xayma xool accord bi lan la ci gouvernement bi def ak lan nga xam ne moo des ñu formuler ay recommandations mais duñu yem ci loolu dañuy daal di jublu ci loo xam ne mooy tax euh, syndicat yi aussi ñu tàggat leen ci li nga xam ne politique publique yi. ñu dem ca jaba wax ci leneen itam loo xam ne askan wi nee ñu dafa daal di xaw a manqué muy euh, lu jëm ci soble soble boobee nag ñu yore euh, lu jëm ci toppatoo gi muy agence de régulation des marchés publics ARMP ibbi nañ buntu yi ngir soble ba ni bayee biti réew dugg si fii loolu nag ñu yëngatu ci euh, mbay mi mbayum soble mi ñoom nag ànduñu ci ndax nee ñu ña nga denc soble soo xam ne jaay ko dina te ticc ARMP ne gisewut ARM ne gisewut noonee ndax ñoom euh, bi ñu demee nag euh, ca jaba la ñu gis rek mooy euh, soble daal bi nuy bayee maanaam soble mbay daanaka dafa jafe ba noppi itam njëg lii day yokk di yokkaat màggat gay Amadou Ba dogal ba daanu na soble bi ñuy bayee ci bitim réew dina tàmbalee dugg ci marché bi bis ni ki tey interprofessionnel bi yëngu ci wàllu wi jàpp ni ndogalu ARM boobile doon na lu leen bett. mu xëy rek mu ne daal soble day mu neex mu naq di da koy wàcc lu ko lal nekk loolu moo ñu umb ndax li mos am moo ñaar fukki at ak nangam filière bi maa ko jiite bee ren maa gañewaat nekk président filière bi mosta mosta am ren nekk mu xëy rek tey mu xëy rek mu ni daal day wàcc soble bi ki jiite ARM jàpp ni interprofessionnel bi des naa responsable mu xam xamle itam ne ubbite marché bi le mënul ñàkk ndax soble bi ñuy bayee ci réew mi daanaka kenn mënatu koo teg bët teg si njëg li day wéy di yokku. décision bu ñu jël mooy 8 janvier ba léegi ñu ngi jaay soble réew mi prix bu ñu fixé woon 240 borsan la su prix bi demee ba ba tey ñu koy jaay 600 francs 800 ci détail di gaañ consommateur bi dañuy ubbi marché bi pour mu am cohabitation après une semaine. du mot sax une une une parce que lu ñu dese quand même quand même bëriwul mais duñu xaar aussi ba soble yëpp jeex pour ñu ubbi soble bi des na mais lu des bëriwul te couvrirul réew mi yëpp du problème coin bi rek am na soble démb par exemple ñoom nee nañ ne soble bëri na marché jam eh, marché Gueule Tapée waa Caaroy taxaw ñu ne ñoom amuñu soble producteurs yi jàpp ni li directeur général ARM wax tegu ko fenn ñuy artu di xamle ni soble bi ñuy bayee bitim réew moo nar a gën a seerati sax. nee na soble bi dafa yokk dafa yokk nangam nangam jaar fii dugub waaw loolu bu yegg importation bu génnee léegi kilo bi day gën a seet soble mbéy mi waaw kon kay loolu taxul. te te nekk pootu mu ngi am stock dix mille tonnes soble fii ci marché Dalifort mu ngi am huit mille tonnes stock. autorité de régulation des marchés di woy di campé ci décision ba mu jël baykatu soble yi ñoom ci seen wàll di woy di ñaan autorité yi ñu may leen fukki fan ak ñeent ngir ñu mën a jeexal li ñu jot a bay Maguette Gaye ka jiite ARM ab na mu gisee noone itam la jaaykat yi nekk ca Thiès gisee nee ñu euh, soble mbay teg ko gët jamono ji jafe na ba tax itam ñoom ñu sàkku rek euh, buntu yooyu ñu tijji ko soble bi dugg njëg li itam euh, moom soble mbay nee ñu dafa jafe ndaxte boo ko wëree ba gis ko daanaka di nga yëkkati téeméer ak ñeent fukk ngir am ca kilo lu ci mën a am amal nañu toggaanum ñaxtu ca centre marché central ba nekk ca Thiès ci teew taxawaayu Cheikh Anta Diop la woon. ñu yëngu ci wàllu soble gi di producteur yi commerçants yi nekk ci marché central bu cees na naqarlu lool kàddu yi nga xamante ne rote na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy producteur oignon yi nekk ca Potou di wax ne nag nañu téye soble si jóge bitim réew ngir mu bañ dugg ci réew mi loolee commerçants yi nekk fii ci di diwaanu cees de ñaawlu ko lool. Dalifort rek moom moo am soble waa Thiaro yi ña foon ñoom nee na amuñu soble waa Pout nag foon ñoom nee na soble am na Pout mais prix bi dafa cher. te am na fa am na fa joo xam se ne ñu bëri mënuñ see jot benn suñu ñi nga xam tax parce que ñoo ngeen fi gis ngeen ni mu demee lu toll ni Thiès amul soble te Thiès ni mu ko ñàkkee noonu la ko yeneen régions yi ñàkkee ARM li muy wax mooy soble amut parce que gis nañ ko pause nag moom soble am na lay wax mais soble am na bi ñun gisuñu soble bi dégguñu ko fenn kon nag jot nañu indi importation bi bëgg nañ ñu fexe ba importation bi dugg ci marché yi tey plus tard mu nekk suba wala tey sax ci guddi gi moom mooy gën. jaaykatu soble bi dañu ko fekk ci place am waaye nee na soble amul ci marché bi nguur gi war na cee jëlee pexe ngir soble bi nekk bitim réew mën a dugg ci fii ci Sénégal bu ñu ko defulee de dina metti lool ci askan wi. kees gi xam nga gisoo fi benn doom soble bi nga fi ñëwee yow vérifié nga ko dañuy dem jël li nu am ñu dem bala ko ko Dakar naan soble dafa bari dafa bari boo fekk na yeneen raison yi ñu ngi bëgg a dee gisuñu benn soble nu benn soble gisuñu ko soble war na noo mën a génne importé bi soble bi tasaaroo ci réew mi kenn ku ne jot ci waaye soble mu nekk benn raison kese ñu mel ni yaa yor sa prise yaay wooy roof yaa wooy roppi loolu moo war a denc Sénégal. ñàkk ak soble gi ci diwaanu Thiès nag daanaka laal na jigéen ñi ndugg ci marché bi ba tax na sax soble bi nga xamante ni jamono yi nekk dafa nëpp daanaka ñu ngi koy jaayee kilo bi téeméeri dërëm. Cheikh Anta Diop ñu sant ko gërëm ko leneen itam loo xam ne dafa jafe ci jabi jamono jii muy suukar rawatina suukar bu mokk bi waa CSS di compagnie sucrière sénégalaise bi euh, liggéey suukar bi ne yokk gi euh, jëmul ci ñoom leneen itam lu ñu xamle ne ñu suukar moom euh, jafewul ndax ndaxte lu ëpp ñaar fukki junni ci tonne suukar ña nga ñu denc ca magasin yi ci noonu dañuy teewlu Moussa Lo bokk ca kilifay CSS fii ci Ndakaaru kàddu yi mi ngi ko dénk Ousseynou Thiam ma ñu toogal ca Tëngéej ak di ko wax. ñàkkum suukar bi wax dëgg yàlla loolu moom yéen sax laa bëggoon ngeen répondre ko parce que ba ngeen ñëwee li ngeen fi gis fii si ñaajo si sunu trois si sunu ñetti dépôt sucre yi nekk fii euh, yaakaar naa ni suukar kay xam naa ni dañuy wax ne li fi nekk moom dafa dafa sax ëpp waaw mais suukar moom ñàkku fi moom mu ngi fi suffisamment yaa y a vingt deux mille tonnes de sucre yoo xam ni actuellement noo ngi fi entreposé si sunu ay magasin léegi kay ñi nga xam ñoom noo koy jënd pour ñëw jaay ko boutiquier yi ak yu demee noonu ñoom xam naa ñoom noo war a ñëw nu jël suukar bi te noo ngi ñëw sax mais donc léegi ñoom xëy na ñoom mën nañ joxe explication. yokk bi nun yokk nu suukar suukar bi moom yokk kenn yokk ko suukar bi moom am na lu doy mi ngi nii. ñu jógee ci suukar si ñu dem ca Yoff Layeen wax jafe-jafe bu askan way dund muy ndox yi nga xam ne euh, ndox mu baaxul la maanaam mu tilim mi daal moo leen teree nelaw woowee askan euh, ne ndox moom fa muy jaar defar bi mu sooxe ba noppi itam euh, ñenn ñi dañuy kolaatoo kalaŋaatu ci ndox moomu ba muy ami jafe-jafe foofu nag xam ngeen ne goxab diine la ñoom nee ñu bëgg nañu rek ñu daal di fexe ba génne leen jafe-jafe boobu ñuy dund Mouhamad Samb Modou Diop ci euh, gëstu bi. yoonu Yoff laa yéen daanaka nooyeetuñu xet gu neex li ko waral nag moo di ndox yi nga xamante ni si xet gi dafa bon te mu takk ci tali bi. ndox mi ñaar fukki a ngi nii nekk ak moom mu am ay hauteur un mètre deux na ñëw taxaw ci lii mënatuñu ko muñ suñu muñukaay dafa jeex boo gisee kër ga la ñu janool buntu këram fii la woon yëpp doon toxal seen i buntu kër nekk seen seen wanag. mooy seen buntu kër léegi. lii na fi dañ dafa war a dañ na dañ na deñ a dañ na dañ na dañ na dañ a na dañ na dañ. ñoom ñii nag daanaka sax dem nañ ba mënatuñoo dëkk ak ndox mi te itam di fësal ni amatuñu sax wér gu yaram gu jaar yoon. ñu dëkk nii nag bu tawul bu tawul nii la ñuy dëkk bu tawee nag gis ngeen niveau bi mu nga nele kenn lu génn sa kër tant que deful cinq heures de temps nga mën a door a mën a génn sa kër. te ñun ñi nga xamee ne égout bi connecté wuñu si ku sa fosse fees da ngay fay vingt cinq trente mille. ñu vidé la ko te ñoom ñu jël seen genre trop plein yi di ñu ko sànnil guddi ak bëccëg. dugal leen ci biir kër yi li ngay noyyi fii ngay noyyi ci biir kër yi kenn wérul dañu amul moyen yi ñu demee xool suñu yaram rek. mais xam na ne fi kenn wéru fi yàqu-yàqu yu ndox yi indi nag fii ci Yoff laa yéen jot na sëkk ñu saafara ko loolee nag moo di kàdduk askanu yoof ONAS li muy def mooy euh, bu bu bu bu ñëwee defar ko tey bu subaa mu génn du ko defar benn bés mu toog une semaine te génnul bu ko defaree tey benn bés ñaareel bi mu commencé waat mel nii du ndoxu taw. ñuy ñaan l'état sénégalais au plus haut niveau que ñoom ñu taxaw ci lii rafetul ndox mii ngeen gis bu baree ba baree ni dem un mètre un mètre cinquante bu fa jógee mu ngi jëm à quatre-vingts mètres. yu xabru Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam. li ñuy duppee branchement clandestin ak itam canalisation boo xamante ne si daanaka jaarul yoon loole nag ñiy dëkk ci Yoff laa di ko ñaawlu te xamle ni ndox mi nga xamante ne si xet gi dafa bon bu ñu sañoon mu jugee ci dëkkum diine gi. Mouhamed Samb ñu sant la gërëm la wax ci beneen ponk bu ñu leen junjoon xam ngeen ne jamono ji accident yi bari na fu ni ñu ngi koy wax bakkan di rot ñu muccee ca accident ye ña ko fekkee te dara jotu leen euh, seeni jege ñaale ñoom ñi ci jëlee ay gaañu gaañu la ñuy dund metti na léeg-léeg mu dem ba yóbbu seenu xel yóbbu seenu fit ñenn ñi dëkk ci sëngeem la ñu wax rek mooy ñooñu euh, képp ku leen xam danga leen war a jàppale Ousseynou Diop defal ñu ci ab taxaw seetlu ànd ci ak euh, Habib Seck jafe-jafe la ñu am bu fekkee ni am nañ seen waajur bu génn àdduna ci l'accident wala boog sax ñu bokk ñi nga xamante ne l'accident bi amoon dañ ci ñàkk ñu leen jege lool. Fanny de Prost moom psychologue la moom li mu gis mooy lu ni mel bu fekkee am na ñu ci bare dañu dem ba xaddi mu jàpp ne ñun war a delloowaat lañ ci société bi. le traumatisme en lui-même c'est un c'est un. ñu jóge si l'accident ñu doon ñoo xamante ni seen ay mbokk da ca di faatu euh, jiixi jaaxa lay am seen i xel day dem mujj sax mu doon loo xamante ni lu metti lay doon ndaxte ku leen jege dafa faatu wala boog ñu gis loo xamante ni dee mënoon na ci am loolu nag bu amee da lay jàpp sentiment la boo xamante ni nit ki bu amee ci ci mën dara. et un grand sentiment de voilà ça c'est vraiment le le traumatisme. ñoom ñooñu nga xamante ni nag dañu bokk ci ay accident wala bokk seen ay waajur bokk ci. leen ciy toppee lu ci bare day jafe loolu ñu dindi ko ci ñoom. nga fàtte loolu doon na loo xamante ni lu métti la nit koo xamante ni la jege wala koo xamante ni sa waajur la nga fàtte ko loolu moom mënul am waaye nag li gën a am solo ñuy ànd ak moom ndaxte am na symptômes yu bari yoo xamante day am ci moom day fàttali ko mbir mi mu euh, desiwaat mu mel na ku koy jeneer des saa sax mën a doon ay gént yoo xamante jafe-jafe lay doon ci moom bis bu ne muy desiwaat mën na moom mës arrêt benn jafe-jafe bu mu mën a indi nit ki euh, mooy que ni saa su ne da koy euh, xalaat muy desiwaat ci moom muy euh, mel na mu ni tëll rek mu jàpp ne dama na Sénégal jamono jile bare lool ñi nga xamante ni dañuy faatu wala boog ñuy am ay laago ci l'accident yu bare yi nga xamante ni moom la ñuy nemmeeku ñooñee lan mooy conseil yi nga xamante ni war nañ ko làmboo sociologue bi di ci indi ay tontu alors euh, les euh, conseils yi nga xamante ne koy joxe bare na euh, bokk na ci ba ci njëkk mooy bu nu ko bàyyi moom mi nga xamante ni dafa ne tëll ci moom muy nekk moom cote entourage dañu war a taxaw ci wetam saa su ne di ko gunge di ànd ak moom di ko nemmeeku itam. leen loo xamante itam dama ko bëggoon na leeral fii mooy que ni traumatisme rek mënul nekk ci ki nga xamante ni la kenn ki nga xamante ni la itam war nañu bàyyi xel ci moom ak ki nga mu mel na kon ñi nga xamante ni dañu bokk ci l'accident wala bokk seeni ay waajur bokk ca ñu jële ci ay jafe-jafe ñu nu war a taxawu lañ ci kàddu bi bile ay pexe la ñu war a def ngir ñooñee mën a gën a delluwaat ci société bi bu fekkee ni sax loolee dina jafe ndaxte ñu ci bare mbir ma di dikkee ci ñoom mooy doon lu metti lool Ousseynou Diop jërëjëf ci gëstu bi accident yi bari na ni ko <coughs> dale ko euh, fële ca Casamance di bët Saalum euh, ba fële ca euh, Ndar géej di bët gànnaar jaar Ndakaaru bakkan yi rot bari na bi ci mujj nag mooy bi démb ci Ndar cortège u benn ci jëwriñ yi ñu ci jële woon ay gaañu gaañu la ñu jëleeb woto muy ambulance mu fa bàyyee woon Ndar di leen jël si ñoom ñi amoon ay gaañu gaañu tase ak woto bu ndaw mbëkk ko ba ay bakkan rot ci tax na réew mi ñëpp di waxtaanee yooyu accident suñu ganu xibaar gi xam-xamam màcc na ci wàllu dem ak dikk mu yàgg ci lool muy union des routiers du Sénégal góor a xuma euh, bokk ci boobile kuréel euh, góor a gis nga accident yeeg bakkan rot laaj bi saa yu ne bu ñu ko waxee euh, lu ko waral ñu ne ñàkk yar gi ci tali bi ñu ne code de la route ngeen yàgg ci diggante dem beeg dikk bi ci tali bi mu mel ni accident yeeg ni mu naa takkarnaasee lu mel nii mën nañ ne guleet ci réew mi naam am na bakkan yu daan rot waaye semaine bi moom ni ñu ko dundee dafa mitti waaw jërëjëf soxna si ñu ngi nuyu askanu Sénégal yëpp bi masawu ñëpp mm-hmm. man de xam naa ne ni ñëpp tiite noonu laa tiite mm-hmm. man damay poser question sax ah c'est pas une malédiction bu dugg ci biir Sénégal ci wàllu accident ndax chaque jour boo yeewoo léegi. Mm-hmm. dégg accident moom dëbëtul moom. Euh, ñun ñëpp nag ngi war a xalaat lan moo indi accident yi ñu utal koy saafara. justement Eh, ñun dey bind nañu toog nañu gouvernement wax leen ne leen eh, duñ ne sa accident dina fi jóge mhm. waan mën naa wàññeeku ci boo oto bu képp koo xam ne da ngay dawal oto ñu wut dañ laa war a natt natt bu tax mhm. nga mérite am permis tànk nattuwaay yooyu mhm. xooluñu ko amul sérieux maa tey du fi jóge oto bi ci boppam dañ kaa war a natt ba xam ne mu war naa mérite na visite technique oto boobu tant que loolu awut mbaa bariwut jëy du fi am ñun ñuy dawal oto. Hmm. conditions yi baaxut war nañoo fexe ba ni mu amee ministère des transports ministre du travail soobu ci ñun encadré liggéeykat yi. Hmm. beneen muy cër boo xam ne bi wax nañ ko waxaat ko muy gouvernement. Hmm. ni mu amee euh, di ko def ci renouvellement parc ci car bi ci njaganjaay bi di indi ay tata muy kuréel bu ñuy wax abti wax nañ ko ne ko noonu la ko war a yaatale ci bu gën a gaaw du ko ay jóge pour que ñu mën fee jëlee surtout lu mel ni cette place yi cette place damay wax ne chaque jour cette place bi ci boobu moo yàqu kon dafa nekk loo xam amul ko njëriñ ki koy dawal amul ko njëriñ ki ci dugg amul ko njëriñ kon projet la boo xam bii état koy wax mais da cee war a farlu état du joxe kenn ñaar mais day créer ay conditions ni mu créer ay conditions ba ñuy mën a jël car mm-hmm. a interurbain bi ci cette place bi bu au moins au moins d'ici deux ans. Mhm. nit du gisati. Ah ah. ab ab place bi. Mhm. nit ñi ci ba mu ñun ñii war nañoo xam ne dawale nawet war nañ ko sóoraale bu baax. Mhm. ak dawalu noor. dawalu noor ak dawalu nawet bokk nawet dafa am. noo koy dawale ci sa pneu. pneu mathématique bi ni mu mën a supporter ci saison sèche maanaam la route. bokkul ak nawet nawet dérapage da cee yomb. essuie-glace sa visibilité léeg-léeg du la ko jox. bi ci des mu ci gërëm gendarmerie bu routière bu Kaolack gis naa ñu def liggéey boo xam ne ma ànd naa ci muy ant bur yàlla bari na accident fa muy guddi ant bur sa oto nit bu ndaw la moom mag la dóor la ant bur yàlla moom dina gis mais yow ba bokkutoo yow da ngay dem rek loolu dal ci dal dal léegi nag ant bur yàlla yooyu ñoom dañ koy dindi ci oto yi di ko sànni man dama ci encouragé gendarmerie mm-hmm. te ñëpp dañ ko war a toppatoo ant bur yooyu charrette yi am na cër bu bari ci wàllu accident yi. Mhm. mais lépp nag soxna si. Mhm. mooy ñun. dawalkat yi ndax oto bu taxawul. Mhm. bu dawul du def accident. kon nañuy jox cër. te xam ne ñoom contrat moral. très bien ñun ak nit ñi yëpp. Mhm. ñun ak marchandise bi yëpp. mu mel ni accident yi euh, ni nga ko waxee euh, góoraxuma daanaka woto yëpp la laal bu ñu demee ba ñu naan ambulance. bus ba sept place ba 4 x bi euh, loolu mu mel ne kon fépp la. kon foofu question boobu foofu nga baal ma nga baal ma tuuti rek dama bëggoon ñu ñëw ci sànq yaa ngi naan war nañoo xoolaat permis yeeg lu mel mais est-ce que itam lenn li du ak maata yeeg ñàkk yar parce gis nañu bari dañuy am expérience ci tali min nañ dem beeg dikk mais est-ce que itam du affaire maa def la ma lu ma neex ci tali. maa bi dafa bari fii maa tay nag baaxul fenn mais rawatina nag ci kuy dawal oto. Mhm. maa tay mën ko yaatu. maa tay passé bii nga xam ne kii wur am visite technique. Mhm. nga jox visite technique maa foofu la. góor ko bi mënul jox ko de conduire maa ci la bokk. Mhm. man mii nga xam ne mënu maa dawal aussi nga jël sa alal dénk ma ko. maa la bi ki des dafa am loo xam ne état mi ngi koy sëgg te wur ko sëgg. muy ay centre formation moo gis nga journaliste bu génne sësti hmm. néewuñu ko amoo xam-xam mais dañ koy booleeg ay natangom ñu formé ko bala ñu bala ñu ko jox bic na ko bindal hmm. bala ñu ko jox micro na ko waxal mooy stage gi daal waaw xam nga loolu terewul ne mais si tamit am diplôme terewul waxul ne mënoo dawal mais catégorie ñoo bokkut hmm. ndax day bi la dénk nga am poids léger am poids lourd am transport en commun am nga diplôme yëpp mais taxul nga mën a dawal camion taxul nga mën a dawal bus ndax taximan bii nga gis ni catégorie waaye est-ce que mën ngaa wàcc ci taxi di war bus dañu def ci région bu nañu dafay centre yoo xam ne yi dañ fay camion mhm. gros porteur teg fi bus yow boo amee permis nga ñu tàggat la ca camion ba mhm. ba jox la këyit muy ab CAP mhm. muy attestation plutôt nga dem ci bus bu ñu tàggat la ba nga xam lan mooy bus ñu jox la attestation ba lañ laa jël képp kuy jël danaa ana sa attestation bi nga la jox mais yooyu gouvernement la war mais da gis ko am permis tey tey jële dem port ñu jox la oto mm-hmm. camion nga jëw moom Maliba nga jëw moom Rosso mm-hmm. nga gis ko am permis tey tey ñu jox la bus mm-hmm. am nga permis effectivement am nga permis mais est la war a nekk ak yow bu la li la war a gunge gungewu la fekk da nga kaa da nga kaa teel da mun amul benn métier da baax moo tax ñu koy wax état même saa bu ñu koy waxee dégg nga beneen bi li gën a indil ñu problème mooy Sénégal amul aide de repos da ngay déparé Dakar gii jëm Rosso baa nga jëm Guinée Bissau baa nga jëm Mali nga xam auto de personne transport de personne nga yore moo xam transport da ngay dem rek mais doo taxaw dëkk boo dem maire ba bind kayit na sama dëkk bi bëgguma fee gis ab camion bëgguma fee gis ab bus d'accord waaw léegi est-ce que maire yi bu ñu doxoon aménagé woon dëkk ginnaaw dëkk bu nekk les grandes villes mm-hmm. aménagé même bu dee latérique la bu oto bi ñëwee dugg fa noppalu mm-hmm. gën a xoolaat otam mm-hmm. loolu moo gënoon aire de service yi moo gën a bari daal waaw oto yi am fu ñu dugg pour noppalu mais amul fenn ci Sénégal fu oto yi taxaw di noppalu amu fi. très bien leneen itam góor rek ndax waxtu waa ñuy waaj a dab muy sanction yi daan yi ñu bëri dañu ne euh, daan yi dafa xaw a yomb ci ci ci ci gaa yi moo tax parce que bu fekkoon ne euh, def nga yenn infraction ci tali bi ñu teg la daan yi ci war amaan na sa moroom bu fekkee ne itam day def ak maa tey bu xoolee ni euh, daan bi ko ci nar a fekk dina mën a wàññeeku. xam nga loolu man damay jàpp ne toujours ay caaxaan la. Hmm. gis nga man dokkuwul ma sax ku wax homme de tenue homme de loi ki jàng loi mhm. baa bokk nga am loo ci jàng nga takk drapeau Sénégal muy uniforme mhm. ñu la demal nga taxaw ci tali bi nga contrôler kooku yaa yaakaaru Sénégal mais bu ñu yemalee nag ki baax ak ki bon mhm. ki jag ak ki jagut loolu mooy di accident yi yow nan nga mën a nekk ndawal buur oto yi ñëw ci yow lumière bu baaxul baa ginnaaw ko dara takku ci nga yemale ka koo xam ne kii moom ko naqaree deret la mais dawalam teg na ko ci yoon otom tamit mbiram teg na ko ci yoon mais du wax ak yow di am relation nag ak kii wax ak yow kii wax ak jagut te boo ko bàyyee mu dem yaa ngi constaté jiwaat am na montage accident fu mu am romb na montage après montage mu def accident yow bi romb nga ñëw def constat mais boo ko téyewoon lii doom oto bi pneu bi baaxul téye ko si gendarmerie mm-hmm. yaakaaru Sénégal la mhm. bari diplôme taxul nga nekk gendarme bari diplôme taxul nga nekk policier mhm. policier tànneef la ci biir tànneef ci gendarme tànneef la ci biir gendarme euh, douanier yaakaaru Sénégal mhm. yaakaar na bu ñu la ko joxee yow soxna si ngay góor ngay jigéen ñu la ka nga xoolal ñu te xooloo lu am ñoom la maa tey nga xam ne ci fu théorie fu mu jógee da ngay toppatoo sa oto yow ba mu baax nga toppatoo sa règle de conduite ba mu normal nga ñëw ñu bloqué la nga gis koo xam ne kii góor xu moom ak góor xu maa yow ak faux rien la jikkoom baaxut otom dara baaxu ci mais mu ñëw léegi romb la fa dem sa yoon. loolu nag bu ñu ñëwalee nag kuy góorgóorlu ak ku góorgóorluwul. Mm-hmm. réew mi du baax. nañu fexe ba képp koo xam ne yaa ngi teg ci ay sart nañ la bàcc ci sart yooyu encouragé la. Mm-hmm. képp koo xam ne nekkul ci sart bakken dafa rëy. Mm-hmm. te man damay wax ne responsabilité bi passé wul. ngay dawal oto def accident. baa nga toog di dawal pour di oto contrôlé ko baa sax doo contrôlé parce que toog fa nga toog oto ñëw chauffeur mooy wàcc ñu fekk si la ah. dem ko bu accidentel chauffeur boobu xam nga bu defee ci boppam ne man daal mooy xaalis man maa moom tali bi du respecté client bi mu yàpp mhm. ndax moom jàpp na moo moom tali bi mhm. te yaakaar ji nit ñëpp am ba ni ku tëdd ya ginnaaw da nga yaakaar ne ndawal buur moo nekk ci ginnaaw moo tax ngay nelaw kon yaakaar jooju moo war a nekk ci tali bi mhm. ba nga xam ne tey ku njëkk ñu encouragé la bàyyi la nga dem. Mhm. ku jagut doo dem. bu yàggee ñëpp jag. très bien solution bu am solo la góor xuma ñu ñëw rek ci laaj bu mujj bi permis yu bees yi euh, ñu ngi naan ñetti fan ci weeru euh, septembre bi mais nag muy décision boo xam ne euh, région bu dakaar rek la soxal ndax itam yàq jàpp nga ni ba pare itam nee nañ bu fekkee ni jàpp nañ la lu weesu trois septembre te amuloo permis bu bees bi de maanaam utuloo ko infraction ngay def. waaw xam nga loolu communiqué ko. Mhm. Euh, démb rek jokkoo naa ci seen point yi waaw démb rek jokkoo naa ci ak directeur des transports. Mm-hmm. pour wax ne ko mesure bi egsi na. mais kenn ku ne xam ne am na doomi Sénégal yoo xam ñu nga biir Mali. Mm-hmm. am denn yoo xam ne ñu nga biir Guinée te ñii taw moo fa téye ñii geraw bu yàgg moom Guinée Bissau mu ñoom Mali. Mm-hmm. moom tamit mu may ma ne ma ñooñu nga xam ne ay doomi Sénégal lañ te yàgg nañ fa. nañ leen recensé. ba bu ñëwee ñu jublu seen permis mais eh. dafa am lu dàq loolu lépp. gis nga renouveler permis yëpp bu ko renouveler numériser ko man jàpp naa ba léegi ndax diplôme dong lañ la jox diplôme bi ñu la jox man li tax ma saw la sax ci sawar ci renouvellement bi damay dégg chaque jour ñu ne Sénégal li fiy dawal oto te yi permis yooyu foo lañu yore visite technique foo nag dañ ko wax dinaa ko ku jàpp nga yore foo permis dañ laa war a ci presse bi ne góor xuma mi jàpp nañ ko foo permis la yore traduire nañ ko devant juridiction mais moo gën a jàpp nañu lu man ñetti téeméeri foo permis ñetti jàpp ñetti téeméeri fausse catégorise mhm. te duñ déclaré kenn fu ñu arrêté kenn mhm. man loolu ay caaxal la bi ci des mhm. numérisation bi dina tax képp ku yoroon faux permis dootoo amati faux permis dootoo amati permis kon man loolu laa d'accord ne genre euh, liggéey la boo xam ne bi man d'accord naa képp koo xam ne que boo jógee ci centre ba mm-hmm. ñu numériser sa permis dalay wóoraleeg am nga permis permis nag laa waxuma affaire accident mm-hmm. mais loolu dina tax ñi mm-hmm. man ne bu ñu ci renouveler rek ay permis diplôme kese la bu subaa tamit accident yi am wax bu ñëw moom tant que permis mooy wax ak accident nattuwaay ba mooy indi accident man nag góor xuma dee damaa yoroon foofu xaalis jox la ko nga jox ma permis du toppatoo tali bi du ma respecté kenn mm-hmm. bu dee man damay sob xaalis jox la nga jox ma visite technique mm-hmm. du ma mbi tam saa boo ko waxee ne ñu góor xuma nit ñi mm-hmm. góor xuma xas jëmbu sama maa gën a bon Sénégal yëpp waa lu tey nag baaxut très bien jërëjëf Gora ñu lay gërëm di la sant jërëjëf may fàttali ne nuyu waa réew mi yëpp mu nga moom mooy euh, jiite union URS euh, di du Sénégal ñu doon wax ci accident yeeg loraange yeeg ban taxawaay euh, la ci dawalkat loolee la xabaaru dëgg bu bëccëg gi mbokk yi wax ci leneen muy Ashura wala tam xarit foofee euh, ca dëkku Seydi Hadj Malick Sy di Tiwaawan dañu ko fay màggal taalibe yi ñu leen di xaar bu nu ñëwee foofee itam euh, dinañ fa amal ay waxtaan waaye euh, lu ko jiitu itam amal nañu waxtaan ngir xool naka la ñuy def ba amal xew-xewu diine boobee ba mu gën a mucc ayib Cheikh Anta Diop say lateex ci ay leeral muk Tiwaawan ziara général bokk na ci daje bi gën a rëy ci Tiwaawan bu ñu fas yéenee amal di Ashura bu ñu tam xaritee ba ci ëllëg sa ndawu tijaan yi nag daañu fa daje ngir xeeñtu njeexital yi nga xamante ne moom la fi mag ñi bàyyi woon ñu amaloon ab CDD spécial boo xamante ni préfet bu diwaanu Tiwaawan ak chef de service yëpp woon ko ngir ñu waajal bés boobu nga xamante ni ay junniy junniy taalibe daañu fa daje. ñu dajale li nga xam ni mooy CDD bi liggéey ci ak monsieur le maire de bi ni toog ak service technique yi fi nekk yépp jeunesse tidiane yi nga xam ni ñoo bokk ci daayira na dañuy ñëw di daje fii ci Tiwaawan waaye lim bi dañ jàpp ni at mu ne tamit dafay yokk ñu war a jël nag ay matuwaay matuwaay yi ci gën a am solo mën nañu wax mooy yokk kaaraange gi kaaraange gi ci biir Tiwaawan waaye yokk tamit ci li wër Tiwaawan waaye fexe lu ñu yombale dem bi ak dikk bi ki nga xamante ne moom mooy Serigne Moustapha Sy Al Amin jiite daayira Al Muxtafina na nag at mu nekk nag taamu nañu waxtaan jëmale ko ci ndaw ñi ren ji ndaw ak jëf lañu taamu ngir gën a xiirtal ndaw ñi ci ñu liggéey. loolu bu ñu ko tànnee yaakaar naa ci jamono euh, wane na ko jamono laaj na ndawu senegal ñoo xam ni ëllëgu Sénégal ci seen loxo la nekk waaye itam jamono laaj na ñoom it ñu xam ni ah. du nu mu leen neexee rek lañu ñu war a doxalee waaye dañuy tegu ci am kilifteef te doxal la nga xamante ni bu ñu ko nattee mu nekk njariñ ci ñoom. ren jii mu toll ci ñaar fukkeel ak benneelu édition ñu xaarandi ay junniy taalibe tijaan ci dëkk bi sell bii di Tiwaawan bu ñu tam xaritee ba ci suba ga Chanté Diop yal na yàlla nangu ñaan beneen xew-xewu diine muy julli géej gi euh, ak euh, pàttaliku gi loolu nag ñu ngi koy amal ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak benn euh, ci weeru sàttumbar bi nu dëgmal ca tefesu jàmmalaay lay xewee muy xew-xew boo xam ne nag at jot dañu koy amal fii ci ndakaaru CRD ba sax nag waxtaan wi altine ji la woon tax na sax ba ki jiite commité bi nag dellu ci liggéey bi mu naxa liggéey yi ak gouverneur bu Ndakaaru ngir fexe ba xew-xew boobee mucc ayib ñu ne itam bépp matukaay moo xamu jëm ci wàllum euh, wér-gu-yaram kaaraange gi euh, dinañ ko jël ba tax euh, jafe-jafe ak lënt-lënt yi ñu amoon daaw duñu ko amaat ci fàttali rek bii mooy ñaar fukk ak juróomeelu yoon bu nu juumulee ñuy amal bile xew-xew nag daañu fa jàng alxuraan wàcce fa xasida di kuréel yi nga xam ne nag dañu dellusiwaat ci njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul ay conférence ak yu ni mel bu ñu fàttalikoo ñaar fukki fan ak benn ci weeru sattumbar atum 1895 la ba julli woon ca géej ga tubaab yi dañu ko fee jële woon doon ko yóbbu euh, Gabon ba waxtu julli jotee nag ca la der ba euh, julli xaadim rasuul euh, direk wan moom askan wi solo sa topp diine waaye itam bañ faat waxtu loolu yépp dinañ ca dellusiwaat rédaction bu télévision Futurs secteur itam euh, dina ci def ab taxaw seetlu bu baax euh, muy gëstub julli géej gi ak euh, kooke nga xam ne moom la ñu dénk liggéey bi ñu euh, wax ci leneen muy xibaarub euh, aada ak cosaan ca Kaolack ñu xamal leen ak euh, site ba nekk ca Sine Ngayeen ca département bu ñooro la bokk na itam ci site yi ëpp solo ci wàllub taarix du ñàkk rek xam naa ñu dellu siwaat ci moom Sine Ngayeen nag la fay nekk ci ay jafe-jafe bari na jafe-jafe yooyee wax nañu ko nee ñu nag moom moo soxal daal dëkk ba ak naqari gaa dem moo ne day bi patrimoine mondial la maanaam àdduna yëpp euh, ñu dinañ ci dellusiwaat ak Ibrahima Jàmme ak jafe-jafe yi nga xam ne askanu Sine Ngayeen ñu ngi koy am tax na sax ñi nga xam ne ñoom la mbir mi laal euh, du nu fa mën a dem ñu euh, jeexalee laata yéenekaay yi ak xibaar bu tiis ñaar ñoo xam ne caabi da leen féete gannaaw fële ca kasop rëbës dañoo ñàkk seen bakkan ña nga nekkoon nag ca chambre 11 ci communiqué bu direction bi moom moo koo xamle nee na nag mbir mi daal ak buxante la wala rek lu jëm euh, ci euh, benn étincelle maanaam ay euh, courant daal wàllu courant ci ventilateur bu nekk ca néeg ba muy ferñeent yoo xam ne daal dañoo jàpp ne ferñeent ya ma nga tukkee rek ci ventilateur bu nekk ca néeg ba wala bokk rek ab buuxante bu nu sukkandikoo itam ci communiqué bi rek mu ne mbir moomee dafa indi woon tiitaange mu day ña di wat waxtu amal nañ ca ab liggéey waaye nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan rek dañu leen a fekk euh, mbir mi am ba noppi lu topp nag euh, ci lu aju ci prise en charge bu personnel boobee infirmerie bi nag nee ñu mënul woon am rek accès maanaam jot ci ñaar ñoo ñu nga xam ne dañoo làqu ci caabi féete woon leen gannaaw seeni néew yóbbu nañ leen ci hôpital Aristide aristique Le Dantec sapeur pompier ñoom ñoo ko amal ngir daal di euh, def rek ab autopsie euh, gën a leerlu ci euh, faatu googe ñu faatu ñu jeexaleek li ci yenn yi ànd ci ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf li am ci réew mi journal Source A nee nañu mooy faf ministre du transport di maître Oumar Youm moom la ab cortège def accident ba ñeenti nit jële ci ay gaañu-gaañu ñu woo benn ambulance mu jógee Ndar ngir dem xittali ji blessé ya ambulance ba moom it ñëw ba ca yoon wa defub accident ca boori Ross Béthio ba rey fa ñetti nit sa benn wata particulier la mbëkk ñetti nit yeneen woon ca wata ba faatu fi l'observateur nañu na mbir yee mi démb ci yor yor jiitu woon ci cortège ba doon moytu Abdou Daan yeneen wata yi ko toppoon ci cortège bi ñëw fekk ko fa ca la wata yi jaxasoo accident am ñeenti nit jële ci ay gaañu-gaañu yu métti un blessé grave ak quatre morts couloir de la mort mooy li enquête dina kay gis ci gëstu bi mu def tey ci suba jëmee ko ci hôpital réew mi ñàkk gu hôpital réew mi ñàkk ay spécialiste tax na ko fi amee yenn feebar yi war a faju rendez-vous ñaari semaine ñetti semaine juróom-benn semaine jàpp at la ñu lay jox loolee lépp li ko waral moo di ay spécialiste amul ci réew mi firndeeli enquête nañu moo di Sénégal soxla na téeméeri neurologue ak ñaar te ñaar fukki neurologue kese ñoo am ci réew mi ginnaaw mi njàng mi ci Sud Quotidien wax ne établissement privé yi ci réew mi ñoo ngi dànkaafu état bu Sénégal ci ubbiteg école ren gi ñoom établissement privé yi xam xamle nañu ne bu état bu Sénégal bëggee ñu jëlale ne étudiant nañ leen di fay seenub xaalis sud nañu ak waroo am na ci boor bi état bu Sénégal warloo ak établissement bi nee na fukki milliards ak ñaar la leen amel établissement privé yi na fukki milliards ak juróom-ñett la journal bi nañu bu ñu ko lijjantiwul nag dana taq suuf ci élèves yi am bac te ñu war leen a orienté établissement privé yi seeni wax gudd gàtt moo na leen état bu Sénégal fay xaalis bi mu leen amel ba mu mat sëkk Cheikh Oumar Anne mi ñu dénk wàllu enseignement supérieur sud nee nañu gaañi ñoo ngi koy coowal pétrole li ñuy tudd ko tuumal rakki président Macky Sall mu di Aliou Sall coow la wundi waat na ci yéenekaay yi Le nañu wax ji mu di débat bi am ci pétrole beeg gaz bi tàkkat na day naagal gi doyen des six di day naagal ci dossier bi Mamadou Lamine Diallo ak Abdoul Mbaye ñoo ngi koy ñaawlu Seydou Gueye ne ci journal bi lépp jëfi politique la rek ak mathématiques yi politicien Le Quotidien tegal ñu ci ne waa dikk division investigation criminelle enquête bi ñu doon def ci yëf yi noppi nañu ci bëjël seen rapport jébbal ko procureur de la République la nag moom procureur de la République di Serigne Bassirou Gueye moo yore ca gël gu yam moo ca des l'observateur mel na ku naan ñu wax ji des na ndax procureur bi déchargé na Aliou Sall ci coowal Petro-Tim ak BBC procureur bi x lay wiise dossier ba nag léegi jox nañu ko doyen des six lu toll ci ñaar fukki nit ak juróom benn L'Obs nee nañu jot nañu leen a déglu ci enquête bi ñoo ngi waaj it yebal ab commission rogatoire ci Europe ngir mottali enquête bi ab enquête ak taxaw sedd la journal direct info xëy def ci société bii di Grimaldi li ñu koy tudd ci coowal dorog bari na lool ci ni ko yéenekaay bi waxee ne ñeenti toni cocaïne ak genn wàll yi ñu jàppoon ci turu Grimaldi ma nga ca drogue bu bari bi ñu jàppoon ca porum Ndakaaru turu Grimaldi ma nga ca direct info di laaj lu tax Grimaldi ba tey Grimaldi saa su nekk Grimaldi ndax jotul kilifay Sénégal yi tere Grimaldi réewum Sénégal la tribune nañu daanaka loolee mooy bëgg-bëgg waa forum civil ne Birahim Seck ak i ñoñam ginnaaw bi ñu félicitation wi douanub Sénégal ci liggéey bu rafet bi ñu def ba teg loxo drogue bi ñu toll ca porum Ndakaaru ñoom waa forum civil li ñu sàkku nag léegi mooy Grimaldi ak terminal yi Ndoodo di lesbienne bi ñuy mbambu ci réew mi yéenekaay bi xëy na topp ay tànkam wax ñu lu bari ci moom doore ko ci bés bi bàyyam yigéen ne Awa Toorodo ab lesbienne la xeetu jigéen yi muy doxaan nag moom Awa Toorodo L'Observateur nee nañu mooy jigéen ñi seeni jëkkër faatu wala jigéen ñi sëy ba tas Mouhamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safo bi ak kóolute bi desandi leen ak programme yu télévision Futurs Médias ñu leen di ñaanal kenn dal jàmm ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf ci seen cofeel ak kóolute